asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñoo ngi nuyu waa muxaddimatu xidma di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëñ maam sëñ Ablaat Busa ak sëñ Ablaat Ceerno ak sëñ Ablaat Mamasta ñu tegal nu ko ci loxo sëñ Afiya mu jàllaleel nu ko ci ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa muy muy sëñ ab ah, mu sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal bépp jullit kàddu yi moom du ci bari kàddu yi sant rekk la ak euh, soññee ci liggéey bi bi nga xam ne moom lañu jiite muy commission mu xaddimatu xidma bu Espagne di ci jiital suñu jëwriñ sëriñ Mbàkke Njaay ci nuyoo bi di ci teg Assane président Moukhaddamatoul ma Espagne di ci teg suñu mag suñu kilifa Alaaji Abdou Ndiaye ak sëriñ Adi Touré bu Palma de Mallorca ak suñu Assane Kawam ñi ñu àndal waaw ñoo ngi sant képp koo xam ne nii nag woowoon nañ la ci commission bi te nga wuy siñ ak jëwriñ joo xam ne ni woowoon nañ la ci daayira bi te nga wuy suñu kon ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen gën a soññaat ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu sëriñ Touba di liggéeyloo muy jumaa ji di leen xamal ne jumaa ji rek moo fi des ci liggéey sëriñ Touba xasaay yi di kon war nañ koo gën a fonkaat bu baax nañ ko fonke woon te ni ma koy waxee toujours rek fonk gi maanaam am na sax waaye des na ndax yëngu bi ñu ci waroon a yëngu euh, mën nañ cee gën a yënguwaat daal ndax lii nu indi ah xëy na am na solo amul solo waaye mënoon nañ fi indi lu ko ëpp ndax lu toll ne Espagne bu ñu naan juróom benn fukki daayira comme ni ma ko waxee ak nangam ah kooku waroon nañ bu nu ñëwee fii rek indi fi loo xam ni dana wuuteeg lii nu fi indi kon nag ñoo ngi ci soñ sunu bopp di ci soñ Touba Asturias ganu nekk di ci soñ jullit ñépp daal pour ñu gën cee góor góorgóorluwaat taxaw ci taxawaay boo xam ne nii daal dana yéeme dana wuteeg bii nu ci taxaw noo ngi koy ñaan sunu borom bi mu defal nu ko defal ko bépp jullit ah ñun ñëpp ñu bokk ci taxaw ndax liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo fi des leneen di fi waaw ah, kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di balo àq ñépp wax ji kàddu yi moom du gudd sëñ Asan moom moom amel nañ ko cant boo xam ne nii moom it ah cant gu yéeme la ndax fu mu toll mi ngi ci soññe di ci dox doxin wu yéeme man fu mu toll mi ngi may woo naa ma soññal gaa yi soññal waaw su ma amee pas-pas it sëñ Assane ci la waaw rawatina nag sama mag ji Alaaji Abdou Ndiaye ak Alaaji Adi aditori mi du liñ fi toog mais bés bu ne loolu lañ may wax soññeel bu baax soññeel bu baax moo tax damay jël sama téléphone jëwriñ ju ne ma woo loolu bëgg nu dolli cee góorlu te ñoom jàpp nañ ci bu baax kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram sëñ Abdou Lahad ñoo ngi leen di siyaare bu baax nga siyaareel ñu bokki jullit yëpp siyaareel ñu suñu affaire ne ko mu dolli ñu ñaan bu baax a baax ndax yéen kat fii ngeen nekk di fi liggéey lu ngeen ñaan suñu borom dana ko def. kon nag ngeen ñaanal taalibe yi bu baax a baax a baax bañ mën a gën a góorlu ci liggéey bu sëñ Tuubaa bi jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu rahmatullahi wa lisaani nawir janaani safi amaani wasit biraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki daayiratu muxaddamatul xidma Touba ak Espagne ak àddina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi saahibul fadilati seex Muhammadul Muntaxa di ñaan sunu boroom yokk ko wér ak gudd fan ak kàttan ba lépp lim naaral Serigne tuuba mu liggéey ko te ñu ànd ko ak moom di nuyu al imaamul akbar seex Afiya Buso ak mboolem ñi nga xam ne bii ne ñoom la bokkal jumaa ji ak daayira muxaddamatul xidma ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara ci turu fédération Espagne di nuyu it sunu wëllëre yi nga xam ne bii ne ñoom lañu fekk fii ci barab bi muy borom turi sell yi laat mu Lahad ma Maasta Cheikh Abdou Lahad Thierno ak ñëpp rek sëñ Fallou Mbacke ñoom ñu nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nekkal ñu fi ba noppi di génnaat ci bitti di yokk seeni jéego ak seeni soññee ngir bëgg rek liggéeyu Serigne Touba bi eh, nekk ca kaw du laal suuf te damay wax ne soññ taalibi yi ak waa diaspora bi ñëpp Euh, dafa mel ni jumaa ji wala muxaddamaatu ma ñaari xew-xew rek lañ ñu tàllal loxo bu njëkk bi mooy weeru koor kon ñëpp nañ ko bàyyi xel xane bi ni lépp luñ ci def wala lépp luñ ci wax doyut waaw ndax foo xam ne fii ni bi bu set lu ëpp ñetti junni ñeenti junni nit dañ fay xéewlu ngir yàlla rek te laaju ñu la ca dara dana la sax sarax ma ndogu fii rek lañ ko gisee fii ci jumaa ji it ñu amaat beneen liggéey boo xam ne bii ne bu safar teroo li tàmbalee ci fukki fan yi ba ci fukki fan yaag juróom-ñett wala ñaar fukki fan ak benn lu man ñett junni nit su juumut lu teg dañuy nekk fii yor liggéeyu jumaa ji di fi xëy di fi gont suba ak ngoon ñooñu seen euh, pas ëpp na kon nag xéewal yi nga xam ne bii ne ak teraanga yi nga xam ne bii ne ñoom lañ fi ñëw fa nekkale nii te képp kenn ci ñun ku nekk waroon na laxasaayu ba sa kër ñëw di taxawul Serigne Touba liggéey bi ñoo ñooñu nekkal ñu si kon ñoo ñu wax dëgg yàlla lépp lu ñu soxla ci mbiru xéewal yi war nañ leen cee war a barkeelu bu baax a baax te dafa mel ne lii ñuy def ay barkeelu kese la waaye nag euh, dërëm ak junni bu ñu leen dee méngale yéen a jaatax ndax dafa mel ni euh, sëñ ma siisa ndongo ak Cheikh Ibrahima Fall kenn ku nekk yónnee woon na addiya gànnaar waaye Serigne Touba dërëm ba la yëkkati di ko di ko di ko màggal ca kaw junni ba kon nag ñu ngi ñaan suñu jëf yi tamit ñu sëriñ bi yëkkatil ñu ko tegal ñu ko ca yéene jooja ne bu ñu fi indee million wala milliard xam leen ni yéene woon nañ fukkam wala junneem incha allahu ñu ngi ñaan it ngeen jàppale ñu ci bu baax a baax léegi nag ma dellu si di nuyu nag sama kilifa yi ma àndal muy waa fédération Espagne El Hadj Abdou Ndiaye nga xam ne bii ni li gars yi wax du sonn infatigable nu ñu koy waxee ci France seex maam Dame Lo seex Moustapha al Karim nga xam ne ñaari at yi ñu jël commission bi teg ko ci loxoom wax dëgg yàlla Assane yaa ngi toog suñu blaat yéen ngi toog xam ngeen ni Espagne moom noppalu na lool noppal nañu ci niñ daan soññe noppal nañu ci ni Assane daan wëree ba ci Palma gi ñu dëkk kon nag sëñ maam daam jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di santit mboolem jëwriñu Serigne Touba yi nga xam ne bii ni ñoo ñu wuy si wala ñoo la wuy si ci woote bi ci kilifteefu Baye du Ndiaye ndax juróom-benn fukki daayira yooyu ñuy wax Espagne yëpp buñ ko limee yaakaar naa ne amaguñ fukk ak juróom mbaa ñaar fukk ñu ci wuy si waaw te lépp loo lu ngeen gis ne Espagne def na ko fii bu dul tàppi daayira yooyu wuy si wuñ ci kon nag jumaa ji nag moom biñ nee tàppi spécial liggéeyu boppam mbooloo mépp ñëw nañ ci waaye noonu ñu koy wooyee. lañ koy wooyee kap ba kap mën nañ koo tàmbalee Canarias ci suuf ba Balear ca kaw tàmbalee ko Andalus ci suuf ba Aragon tàmbalee ko Castilla Leon ba ba ba ba commune Valencia ak biir Espagne gépp fu fi ab taalibe ne waxuma ab daayira fu fi ab taalibe ne na nga fexe ba saw ñaq dugg ci liggéeyu jumaa ji barki démb damaa dem dëkk bu ñuy wax Kalarajaar daja fa ak nit mu ne ma day sàkku ndimbal mën ne ko ah man day yoruma lu bari waaye géej gii ma taxaw ci de ak géej gi ca Casamance ak Mbuur yaakaar naa ndox mi laalante ne mu ne ma waaw ma ne ko kon nag sama litre ndox bi laa ciy sotti fu ma neex nag tànk kon liggéey bi noonu la demee képp ku ci def sa dërëm xamal ne fond fondement jumaa ji yéen a yem képp yéene waaw loolu nag lañ ci amoon loo xam ne moom la ñuy soññ sunu mbokk yi di soññ mboolem kuy jëwriñ ndax eh, bari wax taxul ñuy wax mën a wax it taxul ñuy wax waaye yàlla xam na ne suñu yéene ci jumaa ji ak liggéey bi romb na fii te teguñu ko fenn lu may ci kanam jëwrin yi ndax sëñ gan kamam yi nga xam ne bii ne bu fa bàyyi du nekkee bu fa néewul yëpp dana taxaw mboolem luy Canarias waxuma sax ili ili Canarias lii Tenerife dana ko taxaw noonu la ko jëwrin yëpp di taxaw bu ñu waxee demee Madrid sëñ Baara Ndooy Cadiz Alaaji Moodu Diop Almeria Baye Ousmane Sow euh, Valencia Baye Mbacke Amar ñoom ñëpp ñi ngi taxaw ak waa Catalonia Bidayatul Xidma ñëpp àndoo ci gannaaw fédération bi ci njiitul jëwriñ sëñ Mbàkke Njaay kon nag loolu lañ leen bëggoon a wax di la waxal ne li ñu bëggoon ci li ñuy wax ci jumaa ji ay yitteem Assane wax na ko léegi rek mi ngi wax ne am na ay batterie yoo xam ne ñu ne sa fàgguwaale nañ ko ci liggéey bii ñëw lu bokkul ak lii ñu andi Baye Abdou Ndiaye wax na ma ne am na yeneen taalibe wala yeneen addi yoo xam ne ni mi ngi ci gannaaw di ñëw kon dafa mel ni lii dañ koo tàmbalee rek ngeen xam bii nag màggal gi li ci des bareetul te nit nag moom loo koy téyel bala ko taxoon di ko laaj jot jox ko jot su baree dañ koy indi bu néewee dañ koy indi bàyyi bi ñu ngi leen di sant di sant sëñ Abdou Lahad ma Thierno sëñ Abdou Lahad ma Asta sëñ Abdou Lahad mu di sant li sëriñ Afia ndax dafa mel ni yéen li ma wax seen tur yi bu wuy jiyee turu Cheikh Abdou Lahad ñàkk caaxaan war na ñoo xam bii ni kon fii lu fi dikk tegu na ci aw yoon ngeen baal ñàkk bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jégglu benn baat buñ ci bëgg a doole rek mur di wax ne ñun ñi nga xam ne bii ñoo nekk ci bitti képp ndaw kenn ku jóge fii ci jumaa ji ci turu daayira muxaddamatul xidma nañ ko jàppe ne jëmmi daayira muxaddamatul xidma fi ñëw jëmmi sëriñ Afia mën nañ koo tàmbalee ci sëñ Abdou Lahad Maam Cerno mi bi ñu njëkk di ko laase moo ànd ak Asan ak sëñ Maam Moor ba ci ren jii sëñ Abdoulaye ma asta ñëwal na boppam ñu ngi door a génn ci pandémie liggéey amul waaye fépp fu daayira ne fu am maana wala foo xam ne fii ne mbooloo maa nga fa yëngal mu xadimatul xidma jël na tànkam ba dem fa waxtaan fa soññee fa te biñ dikkaate bi ñu ngi ko fekkaat fii ci liggéey bi mu taxaw di ñu gattandu kon nag loolu ñun ñi nga xam ne bii ni ñun ay benn ki ñaar dong lañ ñuy laaj te ñu tamit liñ ñuy laaj mu néewoo ñu bari ñoom ñii di mu xadimatul xidma kenn ku bokk ci ñoom ku dëggulu sas ba noppi wëlbatiku di liggéeyal daayir bi amu ñii ngi ci xam-xam bi ñii ngi ci culture bi ñii ngi ci sociale bi ren ji bi ñu ñëwee ci koor gi damaa dem ba yàgg sama yaram daw li mu dawee mooy dama ànd ak sëñ Abdou Lahat nu Thierno mi sëñ Abdou Lahat Thierno ñu dem ci sëñ imaam sëñ Fallou dem ci sëñ Afe dem Baqiya dem ci buub kër ya dem ci sëñ As Jaxate dem fépp foo xam ne fii ne luy liggéey ci jumaa ji la dem nañ fa yëkkati loo xam ne lii ne kawe na suñ njor jox leen ko ci turu diaspora muy social boo xam ne bii ni dafa mel ni li ñu fi sax dañ koo dublee dolli ko ci joxewaat ko te yëmut foofu lool rek ñoo la ñu wan ñun waa Espagne te bokkul ak ndogu yi bokkul ak xéwal yi bokkul ak dara loolu nag jëf ju leer la joo xam ne jii ne li sëñ Blaat waxoon ne bu la nit defalee dara ren ba déwén déggoo wax ko fenn dafa mel ne kon booy wut seen man nag wax dëgg yàlla seere lu ma xamul man xaw ko waaye lii ma gis ci weeru koor ñu def ko jaroon na jullit bu nekk loo am bu dee fukk boo munta joxe léppit nga génnee asaka ja wala addiye ja tegal ko mu muxaddimatul xidma looy def nga door ko caa def ndaxte kat li ma waxoon ci géej gi rek moo fi nekk borom liitarum ndox ak borom bërigoom ndox moom bu ñu sottee ci géej gi kum neex nga tànq loolu ndax ndax kenn mënul wax ne fii nga yemle wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaw somme bi nga xam ne bii nii jébbale nañ ko fi ci euro aratu asan wax na ko léegi tey mi ngi toll ci deux mille neuf cent deux mille deux cent quatre vingt euro buñ ko wecc koo ci taux trois mille astaghfirullah trois mille deux cent quatre vingt dix buñ ko wecc koo ci taux six cent cinquante cinq dana nekk deux millions cent cinquante quatre mille waaw bu fekkente ne wecc bi àgg na foofu su ko fekkee da ko ëpp noonu la bu ko manqué ñu jéggulu ko rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu aousu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp ci seen seen MKTV Muxaddamatul Xidma TV ak Al Istikhama TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel bi ci <clears throat> weer wu tedd bi ñu nekk ak bis bu tedd bi nga xam ne moom lañu dëgmal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwri ni boroom liggéey bi te di ko ñaanal suñu borom mu may ko gudd fan ak wér te defal na ko nun itam di leen nuyu ci turu Serigne Afia bu sa imaam mi nga xam ne <clears throat> moo leen dalal léegi ak ci turu daayira Muxaddamatul Xidma Serigne Abdou Lahad Bousso mi nga xam ne mooy secretaire général bi topp ci Serigne Afia toog nii suñu Abdou bu Bousso maam asta mi nga xam ne moo jiite commission sociale et santé et relations extérieures moom it toog nii euh, ni ko sëriñ Adi waxee léegi bu yàggul rek ñëw na fa ngir dem ci barab yi ngir fëgg fëgg gilin yi muy liggéey bu am solo boo xam ne tamit am baax na ci su ko defee kon kàdd yi nuyoo yooyu ma ma ma yëkkati yëpp ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci seen loxo muy loxol El Hadj Abdou Ndiaye mi nga xam ne mooy kilifa gi yoon wi euh, seen jotaay bi teg ci sëriñ Adi Touré mii nga xam ne mooy jëwriñu Palma di Mayorko ak Baye ma Baye Dame Lo mu Cheikh Moustapha Al Karim ak sëriñ Ngam Ngañ Kama mujj ci sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy sunu coordinateur di jàmbaar lool ci liggéey bi euh, sëriñ Adi wax na ko léegi euh, <coughs> yéen bu fekkoon ne dañuy wàcc ci yoon wi wax dëgg yàlla muy muy muy muy El Hadj di sëñ aadi ak sëñ Baydaam Lo kenn ku nekk xam na ne yàgg ngeen a taxawu liggéey sëriñ Touba yu rëy ci yoon wi muy ay daayira yu mag takk ko indi fii ci gi fi nekkal sëriñ Touba ngeen doon ay jëwrin yoo xam ne ku ñëw fa ngeen nekk xam ne mat ngeen jëwrin ngir soññe ba ak jiitu ca jëf ja loolu de du lu am solo loo xam ne wax dëgg mënees na koo seede ci yéen ci waxtu wu nekk kon liñ leen di ñaanal ci loolu mooy sunu borom gën leen a may ak wér may leen gudd fan defal leen kàttan ba li ngeen bëgg te yéene ko lépp ngeen am ko barakati xaadim rasul euh, gannaaw loolu tamit <coughs> xanaa yëkkati kàddu yi cant ak ñaan ndax liggéey bi euh, sëñ Adi wax na ko léegi sëñ Assane wax ko xam nga ne Espagne moom dafa mel ne seen digg ak jumaa ji ak daayira Muxaddamatul Xidma toujours liñ koy wax bu set biñ koy wax rek mooy xaas suñu borom moo leen ko jagleel ndax ba ñu toog ci kanam suñ Muntaxa muy seede jëf ji matériel bi ñu fa indi dolliwaat ci beneen liggéey ne leen na ngeen fexe ba matériel bi na ngeen ci jëf waaye na jëf ci jëmm ya fa nekk loola euh, dafa doon lu am am solo loo xam ne ñaar yooyu mënuñoo xàjjali ko te ngeen xam ko tamit di ko def muy jumaa ji mooy yax bi jëmm yi fi nekk ñooy dundal li fi sëriñ bi bëgg ndax sëriñ bi fekkee ne santaane na jumaa ju rafet ak sorol yu gudd maanaa suñu borom may ko ko euh, bëggutoon loolu rek waaye dafa bëggoon ku fi ñëw boo duggee ci biir jumaa ji gis jëf ji ak niñ ko nosee nga xam ne li ko taxoon a jóg mooy kaweel kalimatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci biir loolu nag wax dëgg yàlla ci li nga xam ne mooy taxawaayu daayira muxaadimatul xidma laata muy sosu set dama koy wax mooy laata daayira muxaadimatul xidma di sosu daana jëf ci jumaa ji jëf ji jóge Palma di jóge Canarias di jaar ci ñoom sëñ Assane ñii di jaar ci si ñoom sëñ Modou Habib ak Baye di Diop ñoom loolu lu yàgg la bi nga xamee ne euh, daayira bi sosu na tamit ba léegi ba li may wax ak yow amul at mu jot ci liggéey yi nga xam ne moo gën a yitteel moo xadamatul xidma te Espagne du ci jëf moo xam koor la moo xam waajtaayu màggal moo xam matériel bu fay jóge ci ay oto ay machine ak ay baleek ay sarpière ak lum mu mën a doon yàlla dafa dogal nag loolu jàpp naa ne moo tax Cheikh Cheikh mun Mountakha xam seen Pastef ba tax mu santoon leen liggéey bi nga xam ne liggéey mënu koo gën a kawe njort muy tapis yi nga xam ne waxtu yu juróom yu nekk ñu ngi ciy julli maanaam mu am ay bokki taalibe yu ko jën loolu jooju tiyaabam yàlla na ci yàlla nañ ci yàlla lafal cat ndax loolu moom liggéey bu rëy rëy la boo xam ne moom mu ne su ko takk kon loolu jàpp naa ne Pastef boobu moo moo tax at yii nag moom euh, sëñ Aliou wax na ko léegi ñoom sëñ Assane ñi dañoo sàkkoon ay jëwrin yoo xam ne ci dëkk bu nekk dañuy takk laxasaay yi di laaj addiya bu été jotee ak kii waaye ñu dem ba mu yàgg yéen ci seen bopp fédération bi ci njiital Serigne Mbacke Ndiaye ñu xam ne kat wax dëgg yàlla ma Moukhaddamatoul ma ak Espagne kat léegi war nañ koo gën a nos ba tax ñu am xalaat bu rafete nii maanaam wutal ko coordinateur général xam nga suñu asan moom dañuy teewal ci réew yëpp foofu di yàlla mooy soñ waaye suñ bàyyi daam loo mu Cheikh Moustapha Karim mii nga xam ne yéen jëwrin yi yéen a ko tànn samp ko ngir muy woot muy bu wooyee suñu aadi mi ca Palma woo woo woo El Hadj Abdou maanaam dañuy daal di jël ca dayra booba dañuy xam ne ñi liggéeyu jumaa ji kat taxaw na ñu ñu ñu fexe ba dugal ci loolu dafa gën a noppale nim mu nosoo daal dafa gën a noppale muy compte boo xam ne spécial association Moukhaddamatoul Khidma nekk fi nga xam ne euh, daayira yu nekk dañuy verser seen addiya muy doon loo xam ne wax dëgg yàlla amatul benn coono loola def gu ngeen ko def seen yëfi bopp la loolu moom nag loolu nag du ci ñun kenn ci ñun xëy suñ Sëriñ Tuubaa moo leen ko moo leen ko xaasal loolu moom ñi ngi ciy sant bu baax a baax a baax taxawaay bu rafet rafet la te loolu ñi ngi ciy sant jëwriñ yëpp yéen ñi fi teew moo xam Sëriñ Ngañ Kama mi Sëriñ Baye Abdou wax na ko léegi ak sëñ Assane moom dañ koy bàyyee ak rek su ko defee liggéey bi nga xam ne mooy koor gi gis nañ jëf ji ngeen ci jëfoon muy lu aju ci jëm ci ndog yi ak lu aju ci social bi loolu si ñaari seede na ko léegi at mu jot nag noonu lay deme at mu jot noonu lay demee loolu tamit di lu am solo màggal gi tamit euh, jumaa ji ñaari ñaari mbir yi gën a rëy ci moom mooy koor ak màggal waaye diggante bi du taxaw. liggéey bi du taxaw ndax xam nga ne yàgg naa ko wax maanaam bâtiment bu bu mag rek immeuble maanaam soo indi soo génne woon budget entretien kenn xamut lu muy doon lu muy toll kon jumaa ju toll nii jàpp naa li koy doxal ci wàllu entretien lu bëree bëri la kon loolu taxawul waaye màggal nag su ñëwee li tax suñ budget màggal di di di di di bëri mooy depuis le deux safar la première safar lañ tàmbali def entretien sénéral ci jumaa ji biir ak bitti kaw ak suuf mu koy wax mooy sorol yeeg fépp lépp loo xam ne mooy làmp bu lakk wala ventilo bu yàq biir jumaa ji ak bitti jumaa ji daayira bi dafay saisir ay membre am ñoom ñëpp sas leen kenn ku nekk indi ñi nga xam ne matériel lañ mën a indi ba ñu nekk Dakar kankay rek refleurus ak yëpp ñu jënd matériel def entretien jumaa ji loolu dafa munta ñàkk ndax jumaa ji mooy barab bi nga xam ne ku teg sab saak boo màggal see faaw nga ñëw fi kon jaaru nañu waajal ko ci lu mel noonu loolu nag budget bu baree bari la su ko defee biir màggal ki tamit sëñ bi ni mu ko ñaane c'est que màggal dañu bëri ay gan te euh, bëri nañu ñu fi ñëw kon ku fi ñëw war nga fee fekk ak nosu fekk fi diine fekk fi tamit lu jaar yoon moo tax lu ëpp junni nit ci ay membres yi Moukhaddamatoul ma danañ fi nekk màggal lu mat une semaine lii seen liggéey mooy sàmm worma ji ak taxaw nit ñi ba ñu ñëw def seeni siyaar niñ ko bëggee ak it lépp loo xam ne lu fi yellut la ci penc bi niñ koy teree bu dul màggal ñu teree ko màggal ñooñu nag mbooloo mu dul jeex la boo xam ne barki dem rek dem nañ Dakar doon lañ defal ay formation ci Masaalikul Jinaan naa siiwur nañ ko ci MK ngir tàggat leen ngir ñu xam comportement yi ñu yor ñun ñi nga xam ne ñooy jubbanti nit ñi ngir ku fi ñëw ñu man laa teg ci yoon ñooñu tamit nag dafa laaj soo leen téyee fii ci barab lu mat une semaine nañ war a màggale ci seeni kër nga yore leen ko noonu muy di leen berndeel ci fànn yëpp di leen taxaw loolu da ciy benn pàcc wàllu pàcc mi tamit ak taxaw nit ñi ci seen wér-gu-yaram fii màggal gi xam ngeen ni mbooloo mu bëri ak tàngoor bi ak nit ñi nga xam ne tamit dañuy daanu am ñoo xam ne dañuy xam ay garab ay jumtuwaay yi faj yu bari dafay mënta ñàkk moo tax centre de santé kii euh, hôpital bu nekk fii boo xam ne commission sociale bi dafay soxla jumtuwaay yu bëri yoo xam ne du fi mën a ñàkk loolu lépp boo ko dajalee ak liggéeyu commission culturelle bi nga xam ne léegi la conférence bi jeex dañuy def exposition bu mag boo xam ne fii loolu tamit budget bu mag la laaj ak fànn gu nekk ak taxawu bàq ak armeel yeeg yooyu yëpp daal dafa laaj ay taxawaay yoo xam ne budget la laaj kon nag jàpp naa ne loolu moom xam ngeen ko yéen a ko gën a xam. moom dama ko jëlee loo tax xëy na maanaa tamit addee ji wax dëgg yàlla naw nañ ko lool addee ji nga xam ne ñëw na tàbbi ci liggéey bi lu am solo la tey dana ci am solo lool kon mbir mi du ñun du yéen mbirum sëñ Tuubaa la moo xam ne du lenn kenn lépp ñëpp la sëñ Tuubaa daal moom <clears throat> mooy taw feexale ku ci nara liggéey nga liggéey ci ndax moo ko waxal boppam barab la boo xam ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ kon yàlla nañu sëriñ bi dimbale rek ba li ñu def lépp ñu mën koo def te suñu boroom musal ñu ba ñu bañ cee gis suñ bopp ci lenn te suñu borom dolli kattan suñu mbokki taalibe yi sëñ tubaa dong lañ bëgg luñ gis fu ñu leen woo ngir sëñ tubaa ñu wuyu kon yàlla leen yàlla may xéewal ak wér te may leen ay milliards ñu mën a liggéeyal sëriñ bi te defal ñu màggalug jàmm defal ñu tawfeex barakati xaadim rasul te fajal ñu aajo yëpp aajo yi biir ak bitti ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tënk kàddu yi foofu lu ci dëng rek xëy na ci man mi doon wax la waaye lu ci jub ci kàttanu borom bi la asalaamaaleykum wa su ko defee <clears throat> ñi ngi ñaan tamit ci daraja yi màggaayu barab bi barab bi ñu toog di teewlu ci borom barab bi muy rasul di ñaan ci bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Espagne wala ñu nekk ci meneen réew te duñu seetaan te doon ñu bëgg a jëf ci sëriñ bi suñu borom yéwénal seeni mébét moo xam ku bëgg am kayit wala nga am aajo yi e, wér wala nga am aajo yi e, xaalis bu bari bu mën a doy boo xam ne da nga ci mën a teral sang njaboot joxe ci addiye yàlla na ko sëriñ Tuubaa defal te may leen ko teg ko ci seen loxo te sàmm ko ba mu dem fu mu war a dem te sekkil ko lu am solo la ndax Sëñ Abdou Khadir moo waxoon ne tuubaa day <coughs> barab la boo xam ne jëf jëf ju nekk ju baax defe ko fi man moo may gënal ndax fi la gën a sekkee fii nag mooy xolu Touba muy jumaa ji kon jàpp naa ne ku fi jëf sa jëf fi lay gën a sekkee ndax dafa ñor boroom lool nag dafa ñor boroom waxuma la dara waaye di jaar ci penc mi di di dem rek ñi koy def duñ yem ñi fi dut jaar loolu moom loolu moom lu wér la maanaam moom moom kon nag ñi nga xam ne moom dañoo yor matt gi gàddu ko fas yéene jumaa ji lu mu soxla ñu def ko ah ñooñu moom wax dëgg moom moom xel war na cee dal ah, kon sëñ bi yàlla neen yàlla defal wér te defal ñu ko defal leen kattan barakati xaadim rasul kon su defee ñu yemale kaddu yi foofu sëñ bi ñaan salaamaaleykum wa rahmatullah barakatu jërëjëf sëñ Darou Touré eh, ak sëñ Ibrahima sey ci kàddu yu am solo yi nga xam ne wax ngeen ko tam jëm ci liggéey bi ak soññe bi eh, xam naa dañ leen di jaa jëfal rek ndax eh, Italie moom ni ma koy waxee yàlla dogal na moom daayira bi miin na leen ci bépp yitte bu ñëw bu ñu xoolee jëf yi nga xam moo fa mujj bàyyi ko toll na ci ñeent aspirateur yoo xam ne bi ñu indee tàpp yi fii te sëñ bi joxoon ndigal waa Espagne ñu lal tàpp yi bi Cheikh Mamadou Bassir moom sëñ Abdoul Khadir soññee ci Euh, ci tappi ci machine yi nga xam mooy war a setal tappi yi euh, ñoom ñii seen jëf bokk na ca ñeenti aspirateur jënd nañ ko itali mu ñëw loolu tam mu bokk ci jëf yu mag yi nga xam ne jëf ju rëy la ju ràññiku euh, nun nii ngeen soññee nag noonu rek ñun la ñuy soññee ñun ñi nga xam ne dañoo bokk lenn ci ndawi daayira bi daayira bi jox ñu seen kàddu ñu ñu ñu koy yëkkati ci bitim réew muy liggéey boo xam ne daal woowaat nañ ci ñëpp ndax fii yiñ fi soxla woon waxoon nañ ko ci eh, bi ñu màggalee daaw ba bis bi dellu si ca kër Sëñ Afiya muy lu mel ne échelle électrique boobu jóg ci kaw waxoon nañ ko fi waxoon nañ fi aspirateur yi li ci eh, am na ci lu ci ñëw eh, waxoon nañ fi tamit lu mel ne citerne ndox boo xam ne day man di mm, nekk ci moomeel jumaa ji diggante jumaa ji ak loolu tam bokkoon nañ ci ba léegi ñoo ngi ciy dolli yaakaar waxoon nañ fi tamit lu aju ci Euh, entretien bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy euh, beneen camion boo xam ne camion mbuubit lay doon boobu itam sëñ Fallou Mbacke wax na ma ko barki dem na moo bokk na ci li ñuy teewoo kon loolu xam naa rek laa ci doon dolli di wax ne nag Italie réew mu mag a mag la euh, gis nañ ne liggéey bi tam ña ngi ciy jàpp waaye itam tey rek waxtaan naa ci sëñ Fallou Mbacke moom imam Brescia ne ko soxla nañ daal mboolem daayira sëñ Tuubaa yi ne itali ñu jàpp ci ndax tey xam naa bu ñu xoolee li fi sëñ sëñ daaru wax ak ni Italie toll yaakaar naa ñeenti daayira ñoo fi ñëw te loolu liggéey bu mag a mag moo fi am fii ci jumaa ji te kenn ku ne xam na ne jumaa yi sëñ Tuubaa ji euh, mooy dalal gan ñi te it liggéey bu mag lañ fi def bu màggal gi jub see gis ngeen ni ñuy ni ñuy taxawoo jumaa ji ci entretien bii rek bitti lépp bu ñu xoolee mbooloo mu takkoo takku loolu dama ci bañ a jiitu sëñ jil dana ci ñëw ñi fi nga xam ñoo fi nekk ak yi nga xam ne yor nañ ko buñ xoolee jumtukaay yii nga xam ne mooy yi ñuy soxla ba bi ñuy waaj di jóg sax maanaam ni ñuy taxawoo ay ay ventilateur noonu la ñuy tax soxlaa lu jëm ci communication noonu la ñuy soxlaa lu jëm ci ñi nga xam ne ñoo ne ci biir jumaa ji ngir xam ne daayira bee leen yoral seen bopp kon nag jëf jii nga xam ne moom ngeen fi indi moom moom foofu rek la jëm te fii moom dem na ci sëñ Tuubaa sëñ bi gërëm na ko kon xam naa daal ñoo ngi woowaat ñëpp ci liggéey bi ñu xam ne daayira Muxaddamatul Xidma daal tàllalaat na loxo képp koo xam ne rek dangaa nekk ci diaspora bi waaye nag Touba Italie moom rawatina ci woo nañ leen bu wér ci liggéey bi ndax daayira sëñ Touba yi tamit eh, ya fa nekk ñun gis nañ ne bu dee buñ doon wër ñu pësteef ñu leen ëpp pësteef moom moom néewul ci aduna bi waaw kon nag woo woowaat nañ leen ci liggéey bi ñëw Euh, comme ni nga xam ne tam Amérique def na ko ba am fondation Espagne dem ba am association nationale euh, nga xam ne tey jii liggéey bi yaatu na fu waay mën a nekk maanaam sa sa jëf di mën a ñëw loolu daal nos boobu daal soxla nañ ko ci waa Italie yëpp di jëlaat lépp teg ko ci loxol nag sëñ Ibrahima Ndiaye mi ngi xam mooy jëwriñ ji ak mboolem jëwriñ ya fa nekk yëpp ko defee ñu gàttal kàddu yi bàyyi sëñ bu Bousso mi ngi xam ne mooy wax ci kàddug sëñ Afia bisimilah sëñ Jili aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di ci jiital sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy mooy coordonné Europe gépp mu jaarale ko ci loxo sëñ Daaru Touré ak euh, sëriñ Ibrahima Sey mi nga xam ne moom la àndal ak sëñ sëñ Pape Niang euh, di rafetlu jéegu yu am solo yi nga xam ne yàgg ngeen ko dox yaakaar naa at mu jot nii ngeen ko baaxoo defe euh, xam ngeen ne jumaa ji mooy dalal mbooleem koo xam ne dafa màggal si am mbooloo moo xam ne tamit ñooy saytu ñooy saytu ñooñu mbooloo moomu nag eh, ay jun junne nangam lay doon te te ñooñu dafa am ay taxawaay yoo xam ne eh, dafa war suñu diggante ak ñoom ci ay ay ci ay xéewal ak yi ni jëfandikoo ginnaaw bu entretien beeg ya ci aju yëpp jàllee hmm, comme ni nga ko waxee léegi. addi ji amoon na njëkkoon a jiitu si ngay doog indiwaat mottali bi mottali bi nga xam moo ci desoon xam ngeen ne mi ngi toll ci lu to mille huit huit cent di addi am am solo xam ngeen ne ni ko sëriñ Assane waxe addiye moom doonte ab téeméer la sax tuutut waaye nag bu bu bu doonte milliard la tamit ëpput xam ngeen ne kon loolu day day nekk lu am solo <clears throat> waaye nag ngeen def ngeen def ko fi nga xam ne nag Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ku ci feeñ feeñ ba faw waaye nag ku ci ku ci ku ci ku ci nëbb nag wal xiyaasu billah da ngay nëbb ba faw yéen nag yàgg ngeen yàgg ngeen cee feeñ rawatina waa Touba Italie bu yàggul rek ngeen ngeen ngeen jàppoon ci wàllu wàllu cet gi ci wàllu aspirateur yi nga xam ne moom la sëñ Assane Diop doon wax léegi euh, muy aspirateur yu yu yu yu qualité yu am qualité yoo xam ne euh, amal na njëriñ barab bi lool euh, xam ngeen ne lii moom nekkul seen nekkul seen nekkul seen seen seen seen bis bu njëkk waaye nekkul bu mujj waaye nag yàlla na suñu borom def. taw feex ba ni nga xam ne noonu ngeen ko bëggee bëgg taxawe eh, ci ak yaatal ak ak fi ngeen bëgg àgg mu àgg fa lépp yàlla na ko suñ borom def waaye nag yàlla na leen suñ borom defal ay xéewal ci ni ko sëriñ Tuubaa waxe ci képp koo xam ne da koy liggéeyal muy wàqdi xawaajil la siina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu kon yàlla suñ boroom faj seeni aajo ci barkeb sëriñ bi yokk seeni xéewal def ci barke ba lépp loo xam ne bëgg ngeen ko xidmaal sëriñ bi bëgg ngeen ko liggéeyal sëriñ bi ngeen defe ko ni ngeen ko bëggee te du yàq seeni seeni seeni yeneen i jumtukaay dara yàlla mën na loolu yàlla ko yàlla def ci barkeb sëriñ bi rawatina màggal gi ñu dëgmal defal leen xéewal ak tawféex kàddu yi kàddu yi sant rek lay doon ak ñaan ndax euh, euh, liggéeyub sëriñ bi la ngeen indi ko ci <laughs> sëriñ bi rek <laughs> wax kon kon kon loolu moom daanaka wax ji jërul muy gudd <laughs> waa kii waa kii ngeen jëf jërë ngeen jëf tarkal amiin amiin amiin sëñ Ndiéye kontaan nañ amiin amiin